dañuy politique aussi bu fekkente ni un budget de six mille quatre cent milliards deux mille milliards yi c'est du social parce que deux mille vingt trois dañ ko décrété année sociale mm-hmm. euh, les gens vont se dire mais tenez bu ñu voté on facilite la tâche au président Macky Sall en vue de son troisième mandat waaw mais attends loolu c'est ça le problème xam nga c'est pas parce que ñoo ngi dem ci ay élections deux mille vingt que mesure boo xam ne bii mesure sociale la bu président bi jël nga ni du ma ko def parce que dafa bëgg majorité am falu en 2024 ça c' est une grosse erreur te député bu wax loolu population yi war nañ la sanctionner parce que war nañ def la part des choses budget bi président bi di jël di ko def pour askan wi moomu ko xaalisu askan bi la te askan bi war nañu ya am nañu benn maturité léegi boo xam ne bii kenn dootu leen jënd ci affaire xaalis danga leen di jënd ci bilan ku ci nekk day def bilan sectoriel am man man Thierno Lo je suis un cordonnier qu'est-ce que le président Macky Sall lan la ma defal ci sama domaine bi may exercer wu kii ne je suis un menuisier lan la ma defal ak lan la may promettre c'est en fonction de ces paramètres ci nii nit di voter léegi nag il faut que nit ñi arriver à faire de 2023 benn année de débat de programme pour permettre que bu ñu demee 2024 nit ñi xam mi ki fi nekkoon est-ce que li muy def war nañu loo xam ne war nañoo continuer pour woteel ko ki ko bëgg a lan la fi mën indi lu gën li fi nekkoon pour que 2024 moom mën ko woteel c'est pourquoi 2023 année de débat de programme la war a doon deuxièmement assemblée nationale li mu war a servir ci 15 mois yi nga xam ne bi ñu ngi ci jëm mooy ñu wote les budgets pour l'intérêt des population def toutes les réformes qu'il faut pour que su suñu démocratie mën a jëm ci kanam lépp lu nekkoon handicap député yi war nañ ci am benn espèce de consensus pour régler ko pour que 2024 ñu dem ci benn compétition démocratique bàyyi ki droit de validation di les populations ñu valider ça c'est le comportement du citoyen proposition c'est la notion de responsabilité proposition de, de loi bu euh, madame Aminata Touré euh, tànn na à ce que lépp lu jëm ci famille euh, président ñooñu war a di bañ a diriger ci les institutions est-ce que c'est pas une réforme majeure par pour renforcer la démocratie je trouve pas que ce soit une réforme majeure pour man je trouve que c'est de la discrimination parce que xam nga nekk président la république du Sénégal terewul da nga am ay mbokk qui ont les mêmes droit que ñu bokkul ak yow supposons su fi loolu ñuy def noonu ça veut dire que boo nekkee président la république nga am quelqu'un boo xam ne bii am na représentation populaire am na expérience pour gérer des secteurs non parce qu'on dit que vous êtes euh, parent du président de la république amoo droit yow occupé ti dara alors que le président la le plus souvent sax mën naa am benn frère boo xam ne du juboo ak moom mbaa benn cousin xam ne du juboo ak moom waa ji ubbee ñu def compétition mu def ko war ne fii moo ko war a occupé on va dire que la loi là a dit que ni yow Thierno waroo nekk fii parce que ton ton ton frère est président la République Sénégal non ma je peux même ne pas être d'accord avec mon frère qui est président de on peut avoir mais si vous votez comme ça ça va le monde tout le monde ça veut dire que da ngeen di gis toute une famille ngeen mettre leen à la périphérie mais loi boobu bu ñu ko defee man je c'est anticonstitutionnel yi war nañu ko àndaat c'est la discrimination donc je que madame Mimi Touré mën na mëne combat politique mais soo àggee ci yenn man vraiment je n'ai rien contre par parce que sama jigéen la te bu ma sañoon tey jii du quitter le président Macky Sall et que par conséquent je profite de l'occasion pour dire que na gars ak da leen rendre payante ay nit man lañoo ànd ba yàgg ñu am lu leen boole lii énergie bi gars yi def yëpp pour di xas ak di attaquer gis nga bu ñu defoon la même énergie pour jubóole wóor na ma ne madame Mimi Touré mën nañ koo indi ci mu juboo ak le président mac Sall parce que benn li nga xam ne bi la moom mënu koo discuter mooy les prérogatives du président de la république la defoon validité am démb su defee validité keneen normalement pour convaincre ko ci ne daf ko war a nangu dafa war a yomb parce que man Thierno Lo li def sama validité du ma ko bañal keneen parce que bañ ma daan choisir def ma premier ministre laa ñu ñëwoon keneen dafa neex président mu def ko bañ may def ministre la justice laaju keneen ko def mu neex ma ba mu ko defee conseil bële def ko daf mu def neex kon pour yee ko ne ko lii c'est des prérogatives régaliennes président la république moo la ko daan defal defal na ko keneen defe naa ne pour convaincre ko ci lu yomb la mm. beneen bi ci des la question du mandat mais la question du mandat warut a séparé kenn ak le président de la république te président de la république man ci majorité présidentielle laa toog musta toog ak man aborder la question du mandat ba ma wartee toog naan est-ce que neex na ko est-ce que bëgg na ko def ak bëgg ko def ba ma mën te def takk taxe côté de quelque chose je suis dans Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. mais je te dis fii wax ko devant tout le monde te kenn du ko dindi le président Macky Sall je suis à toutes les conférences des leaders de Benno Bokk dégg mu aborder fa la question du mandat ba nit kii di wax lee la bëgg ak lii la bëgg ak damay jëm sama bëgg gis nga ba waxee lu ma wax ca la ci ne noppee waxu cee keneen gaa yi ñooy toog nag ku ci nekk di ci dem. mosul toog ak yéen ni leen. maa la wala bëgguma. maa la ne réunion Benno Bokk Yaakaar amul kenn koo xam ne bu waxee aqulay taalam du la ne président Macky Sall toog nañu mu wax ne bëgg naa ubbi bëgguma la mu wax mooy du ma ci wax du ci wax boobu moom lay wax ci biir réunion yi man mii di waxante yow man dem naa këram. ñu am ay aparté di toog may aborder mandat bi may mosuma cee wax moom lu weesu lii ma li li lii mu wax lii mu wax mosu ko donc madame Mimi Touré donc mandat bi bu ñu ko gérer woon même bu nee d'accordul ci mandaa bi wartoo tax ñu fexe ba mu génn euh, APR ou bien muy def rupture avec le président parce que li tax problème boobu yomb a ak moom mmh. madame Mimi Touré peut dire aujourd'hui je ne suis pas d'accord pour que le président fasse un troisième mandat parce qu'il avait dit que du ko def mais détruire argument boobu pour que moom ku tol ni moom nekkoon premier ministre du Sénégal ba pare occuper fonction yi mu occupé nekk légaliste xam na ne le fait que moom mu wax ko le fait que le président wax ko le fait que Thierno wax ko xam na ni amul benn validité juridique xam na ni le moment où il devra se prononcer mm. day renvoyer la question au conseil constitutionnel et madame Mimi Touré fi ne li ko gars yi wul question boo ko posé woon question ne ko yow nga président d' accord ci troisième mandat bi mais boo ko nekk kan moo am droit de validation elle va vous répondre directement que parce que mënut a ak moom bu ci d' accordul c' est sûr et certain que doolu woon def dara tant que président jëlul dossier am yóbbu ko conseil constitutionnel te bu déposé conseil constitutionnel bu ko validé par force da koy nangu su ko validé wul par force day suivre la décision du conseil constitutionnel parce que sa posture républicaine. ak fonction yi mu occupé ci biir réew mi nekkoon garde des sceaux nekk premier ministre elle peut pas aller au contraire du conseil constitutionnel et peut pas se mettre à un niveau di bas peuple qui dit que on ne croit pas au conseil constitutionnel des trucs am na yoo xam ne yi man Thierno Lo sax mënu ma ko def man waaw li nga wax noonu mhm. mënul diir boppam mhm. est-ce que mënuñu ko nangul la fekk mu ni si jamais euh, man ma nekkoon fa amnistie bi ñu bëgg defal euh, notamment Karim man duma ma ko euh, entrave la si te du ma ko voté est-ce que foofu elle n'est pas logique avec elle-même mais si xam nga loolu moo tax man la le principe démocratique et des expressions plurielles gis nga yi fi ne nii quelle que soit leur position partisane y a des minimums yu ñu war a mën a nit ñi hmm. la majorité aurait pu aujourd'hui aller au parlement et accepter que ñun dañuy voté que madame Mimi Touré nit ñi baña a yow foofu mën nga comprendre. man kooku mën naa koo comprendre parce que du tere ñun suñu majorité dana dem mais moom mais bu ñu xoolee lan ko doon joué loo comme rôle mu dikk prouver ne Karim wadd dafa lekk xaalis kii dafa lekk xaalis kii dafa def lii kii dafa def lii kii def lii nga ñëw léegi quand il faut essayer de comprendre les seen ay posture seen ay posture xam nga mun te ñëw aujourd'hui di accepter ne man damay amnistier lii nangam ak nangam ak bien que man na ne bon l'amnistie ça fait partie de notre arsenal juridique et ça fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale du président de la République mën na refuser foofu mais mën mën ñoo com mën nañoo comprendre yenn attitudes yoo xam ne c'est pas des attitudes de défiance vis-à-vis du président de la République de la majorité c'est des questions de principe des fois qui font que war nañoo mën a tolérer yenn affaires yi dégg nga donc man gisuma fi dara loo xam ne lii war na nekk ay éléments de rupture parce que yi mu posé yëpp bu ci nekk mën nañ ko wane daf ci juum parce que li mu wax kay affaire war naa nekk président assemblée nationale kooku day fekk président nangu ko ci majorité day fekk aussi député yi mën ko voté te it lii nga xam ne bi moom lañ ko joxoon ci joxuñu ko woon keneen kon buñ ko xañee wër ta mer kooku itam mën nañ ko cee réglé leneen li ci des am na yoo xam ne boo ko dee réglé am na yeneen instance yoo ko mën a réglé kon monsieur le ministre yow yow yow mën nga nangu mhm. euh, li nga jàng alxuraan ak li nga xuus si diine nit joxe kàddoom ba pare euh, weddi boppam que moom dafa ni président def ko jox kàddu ni que présidence assemblée amul plan B yow la non xam nga moom dafa wax ne dafa ànd ak président mu promettre ko poste bi mais su fekkee ne moom nit ki promettre na la ba yàgg mu wax la lii dootuma ko def mais war na laa jox explication mm-hmm. elle n'est pas allée chercher l'explication peut-être parce que man promesse boobu ne promesse woon ko noonu xaw ma ba xam promettre nañ ko mais man sans wàllu boobu sax boo ma seetee man yéene woon naag mu nekk présidente assemblée nationale. Mm-hmm. parce que man politique ma farag nit du ma teree ma wax lay dëgg. madame Mimi Touré li tax ma bëggoon man bëggoon mu mu nekk président assemblée nationale. mais bi ñu fi toogee di préparer di dem ci parrainage yeeg dem ci liste yi mais gars yëpp dañu teere woon. ñëpp dañu nëbbutoon moom dong moo doon toog fii. ak man ak keneen ak keneen a keneen ñuy toog di attaquer bi. parce que le terrorisme intellectuel bi ñu doon def ci teg ci kaw nit ñi ak saaga yi ñuy def boo demee ci plateau yi mais terewul woon man damay fanaan di bind di xeex ba bët set ak waa waa waa Pastef ba am ci sax ay xarit moom itam mu nekk ci plateau yi di reyante ak d'autres cadres de la l'APR qui sont toujours sur le tere di xeex parce que mbir soo ko gëmee nga bokk ca da nga war a am cut pour défendre ko mais far fenn du tere nga ñemee wax dëgg xam nga li ma la expliqué man bi gisee muy def combat boobu ànd def campagne bi comme ni mu ko defee man por bu ma sañoon moom la ñuy def présidente assemblée national mais li ci gars yi wax naan par exemple am na yeneen député yu naroon wote contre moom ak ak la tax président changer man ma ko mais bu président changé damay gis ne moom moo ko jëloon teg ko tête de te booba defuñu compétition kon kii def choix buy def sa validité bu defee beneen choix sur ce principe man ci laa nekk da nga koo war a mën a nangu nommé woon nañ def yoo xam ni daa koo jàng liggéey ci terrain bi mais kóolute moo tax ñu jox la ko kon bu kóolute boobu ñu jëlee joxaat ko keneen c'est sur le plan des principes et des prérogatives kooku man duma ko ci jox dëgg sur le plan du mérite nag mérité woon na mais ki nga xam ne bi la moom mooy joxe ca du def élection mais noonu la man bi ma njëkkee nekk euh, président Macky Sall bi ñu boolee man ak moom yóbbu ñu assemblée nationale ma nekkoon ministre de l'environnement moom nekkoon premier ñu jël ñu yóbbu ñu bi ma taxawee ñu ñëw di ma jox ticket yi naan ma Thierno Lo yow yaay nekk président commission défense et sécurité mm, président Macky Sall mooy nekk président assemblée nationale Doudou Wade dama ne Doudou man leen yéen kan moo leen wax ne man d' accord naa ci lii ku leen wax ne man d' naa sax pour nekk président commission défense et sécurité ak kan moo wax ne man d' naa yow Doudou pour que nga nekk directeur xamal ma gars yi dañ ma yow Thierno Lo ñu toogee di ko wax ko delloo mandat bi Abdoulaye Wade l' assemblée nationale mais man Doudou Wade dama ne ko dugg bureau mi ngi may déglu man ko Doudou gis ngeen pétition bi ngeen di def nii man damay signé parce que ci Ablaye Wade moo la defloo pétition parce que yow tu n'oses pas pétitionner le président de l'Assemblée nationale ci sa ci sa coobare bopp Ablaye Wade moo la ne dem leen ngeen def pétition wax Macky na ma delloo li ma ko joxoon man ko bu may génn ci bureau bi ci directement bureau président Macky Sall laa jëm pour ne ko yéen nga koy pétitionner parce que man du ma kagulaar man du ma nëbbatu ma génn tasanteeg président Macky Sall man ko yow laa soxla mu génne le premier ministre la Abdallah Dionne bii moo doon directeur de cabinet la génne bureau ñu dugg ci biir bureau bi man ko président est ce que bureau bee gars yi pétition lañ fay signé contre yow man ma nga demal mu ma suba ba léegi maa ngi gis mu ne ma suba ba léegi maa ngi gis les députés de Fatick ak yëpp gars yi di yéeg ak a wàcc mais Thierno yaa ma wax lu xew ci bureau ba fële man ko pétition lañ lay def parce que dañ ne pétition bi buñ pare dañ koy yóbbu ci ab nga jàlloo sa baay Ablaye Wade li nga xam ne moom loola joxoon ma ni ko mu ne ma Thierno ñaata député lañ man ko cent cinquante mu ne ma bu cent cinquante cent cinquante waaw mu ne ma cent cinquante neuf yëpp sax cent cinquante huit huit yëpp bu ñu signé woon du ma ko delloo ma ne ko gis nga boo ko delloowul dina ko foqat ci te ma ne ko rappelé bi ngeen di ñëw ne man nañ wote dama leen wax ne leen man lii ndax kuruma ci da ngeen ma wax ne nan yéegal ñu ngeen raxas sama bopp pour que ma def li président Abdoulaye Wade bëgg comme comme moo ko bëggoon nam ko defe woon noonu la koy nanguwaatee mun ma xoolal yéen ñëpp signé leen su ngeen signé du tax ma delloo ko c'est comme ça qu'il l'a assumé c'est comme ça qu'il l'a assumé gars yóbbu ko euh, fële euh, commité directeur woo ko mu bañ bureau Abdoulaye Wade la jaar mënu ko léegi jox ma li ma la joxoon mu lànk mënu ko léegi nan dem comité directeur mënu ko déedéet buude bàyyi fa comité directeur dem ñibbi c'est ça l'histoire c'est comme ça que ça s'est passé mm-hmm. donc pour te dire li nga xam ne bile moom mooy prérogative bi ñu la jox ci yenn façon yi bu ñu koy jëlaat ci façon yooyu kon da nga koy nangu loolu lay tuddee validité yi nga xam ne bile moom mooy am ci yi nga am tey ak yi keneen di am donc le madame Mimi Touré mënoon nanoo gérer affaire bi et c'est pas trop tard parce que madame Mimi Touré fi nii nii mënut a wax comme ni opposition di wax naan président Macky Sall warut a wax ci mandat beeg na ci wax yooyu mais loolu euh, quand même euh, euh, un intellectuel ou bien un responsable warut a mun a waxee noonu parce que lu nu mun di wax fii lu luñ mun di wax. Mm-hmm. amul benn validité juridique. du temps du président Abdoulaye Wade Idriss Seck a amené des constitutionnalistes ici président Wade andi fi ay constitutionnalistes ñu coow ci gis nga li tax sama gars yi ma faral tey ba ma nekkee président Abdoulaye ñoom laa doon wax. nan leen dañ leen dem conseil constitutionnel ñu naan ma nous sommes Cheikh Bamba Dièye di ma tontu naan ma nous sommes le conseil constitutionnel ma ne ko vous n'êtes pas le conseil constitutionnel et vous allez passer forcément par lui sinon du ngeen présenté wu même bu ngeen présenté woo bu ngeen pare bu ngeen taxawul ci kanamam du ngeen nekk président de la République Sénégal débat bu ngeen mun di def kii validé mm-hmm. c'est le conseil constitutionnel su ne nii aussi ñoo ngi nii di def benn débat puéril boo xam ne mën na dem sax ba indi fi ay histoire de mort d'homme te toujours est-il que que ce soit l'opposition ou le pouvoir ku demul ci conseil constitutionnel sa candidature du jàll même boo defee élection boo paree doo nekk président tant que validé ki am droit de validation te ñun ñu def ko fi à travers la constitution bi ñuy wax naan moo ñu may tel droit may ñu tel devoir c'est cette même constitution moo teg conseil constitutionnel donc nañ ko def confiance bàyyi dossiers yi dem ci moom lu mu validé ñu bëri bëgg nañu dem conseil constitutionnel euh, pour seen candidature Karim Wade Khalifa Sall euh, yaakaar nga ni véritablement euh, mën nañu bokk 2024 Ousmane Sonko dont on dit que vous ferez tout pour l'éliminer ba du bokk si élection bi parce que moom moo leen tere nelaw et que bu bokkee deuxième tour yéen du ngeen bokk. waa léegi léegi bon Karim Wade ak Khalifa Sall kooku moom président bi prononcé wu na nee na amnistie lay def. amnistie nga bëgg ak nga bañ a bëgg le président il la prérogative de soumettre le dossier. c'est comme grâce bi biir prison da génn par force. boo bañee boo kii yëpp dañ ko def bu ñu ko defee ba leneen nag léegi yow bu la neexee nga déposer sa candidature bu la neexee nga ni bokk ma ci élection yi ou bien nga ni man du ma ci bokk parce que jusqu'à présent réglé wu leen samay problème mu droit. Mmh. loolu moom ñoom la engagé. mais li président war a def en tant qu'institution suivant ak it it ku nekk mën a kon lii loi amnistie bi man dama ko ci encouragé et nañ ko def s'il faut réviser le le le le kii de nu mu tuddati le kii de l'Assemblée nationale règlement intérieur pour defal leen seen i droit c'est une possibilité mën nañ ko def su dee loi amnistie l'essentiel est que nañu recouvrer seen ay droits moom na leen ko permettre léegi nag buñ ko jouiré ça c'est leur affaire buñ ko deful aussi ñu xam ne moom def na li mu waroon def donc man foofu dama ko fi encouragé. Ousmane Sonko mais ne pour l'histoire de Ousmane Sonko mais de il faut que gis république on a une jeune démocratie boo xam ne dañ ko war a encadrer te actuellement gars yi ñu ngi koy susurré ni ñu koy susurré mooy dañu am ay position partisane yoo xam ni ñu moo nu teree wax dëgg moo nu teree di toog gis dëgg moo tax ñuy renverser suñu justice mais yaaxay si mais benn xale bu jigéen bu toogee gis xale bu góor nekk yow mii damay porter plainte pour yow contre yow yow yaa ma violé à supposer sax mu am ñoo xam ne dañoo ñëw di utiliser affaire boobu contre un adversaire politique mu am 14 morts d'homme quel doit être notre comportement ñun en tant que citoyen responsable dañu war a respecter ñi nga xam ne bi la perte nañ seen ay bakkan ki def complot su fekkee complot am na dañ ko war a seet ba gis ko jàpp ko kii nangu ñu utiliser ko ba mu def complot dañ ko war a jàpp tëj ko ki nga xam ne bi la nag bu fekkee cas de la ki nga xam ne bi la moom moo def viol ou moom moo dem sëq xale bu jigéen bi ba tax fukki bakkan ak ñeent dee ci kooku itam dañ ko war a juger donc l'histoire de Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak keneen ku ci mën du bokk dañ war a bàyyi suñu justice mu dem juger ko ba mu jeex kuñ ci war a tëj ñu tëj la kuñ ci war a bàyyi ñu bàyyi la bis bu ñu bàyyee affaire Ousmane Sonko juger wuñ ko di def li gars yi bëgg di nañu classer le dossier ku mu neex defal loola neex suñ paree jëlal ay yet ak ay saaga dajale say nit ne ko ma laal ma taal dëkk bi nañ ko def. l'état ne doit pas être faible. l'état ne la justice da war a nekk pour tout le monde pour tout le monde ce dossier il faut qu'on le vide man de ma concernant man ak suma parti nous nu nous pour que dossier bi kenn du ko classé man xam ngeen ne su leen ay place de l'Obélisque su may marche man jaral na ma bu naroon a classé dossier bi avec des citoyens sénégalais pour défendre la république ma benn marche sur la place de l'obélisque jamais ces quatorze morts la duñ ko bàyyi ci élucider wuñ ko fu ko teg accusé wu ma kenn xaw ma woon lu xew boote ba Adji Sarr bu fekkee ne moom moo nekk xale boo xam bi dafa nangu di jiiñ nit nan ko jàpp tëj ko bu fekkee dafa am ñu ko doon utiliser nan leen jàpp Ousmane Sonko bu fekkee liñ ko wax moo ko def nan ko jugé bàyyi juge bi lu mu wax ci moom ñoo xam ne lii la yoon dogal ñëpp nangu ko gis nga sa war sa mën a mobiliser ay nit ci leneen te képp koo xam ne bii bëgg nga si réew am diine nangoo dëgg position bi ci nga war a taxaw amul parparloo le président Macky Sall